bismillah auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain awnaka ya muin wa bika nastain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaanal cheikh muhammadul muntaka sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naalal lislaam yépp màggale ko di ko ñaanal mbooleem njabootu cheikhul xadim gi ak mbooleem kilifa diine yi ak jullit yi di ñaanal sëriñ abul baraka mu nekk ci bopp njabootu cheikh mahamadul fadal ñaan yàlla sunu boroom yàggal ko te wéral ko ba naal yi mu naalal way juróom bu baax wa ci toolub maamam bi Cheikhul Khadim wàggale ko di jël nuyoo yooyu ak ziyaar yi di ko teg ci loxob sëriñ Habibulaahi moom Cheikh Abdul Fadal sëriñ Abibu Murid Sadiq mi bëgg sëriñ Tuubaa jeex ci moom takk te di ko liggéeyal noo ngi jël nuyoo njabootu Cheikh Ahmadul Fadal di ko jaare ci loxoom ñaan yàlla sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba yéene ji mu am ci liggéeyal ko sëriñ Touba moom Cheikh Serigne Habibu mu defe ko ni mu ko bëggee waaye di siyaare Serigne Moustapha moom Cheikh Mamadou Lamine Bara mi nga xam ne moom la feggool di ko ñaanal yàgg ak wér waaye di nuyu sëriñ Galas Kaltoom moom it di suñu sëriñ di sunu xarit di siyaare Serigne Cheikh Oumy mi nga xam ne it moo woote bis bu am solo bii ñaan yàlla mu yàgg koo woote te yëngu yi ak dal ji ak jëf yépp mu daje ci ak ngërëmul Cheikhul Khadim mi nga xam ne moo tax muy jëf nuyu kilifa diine yi fi nekk nuyu mbooleem bokki jullit yi ak bokki taalibe yi mu mel ni waxoon nañu ñu tënk as ci lenn ci jaayante xam ngeen ne bis bu ñuy defal Cheikh Mahamadul Fadal ba noppi tudde ko Cheikh Ibrahima fal Babul Mouridine booba bis ku ca waxtaanee jaayante yaa ngi waxtaanee ñaari jëmm yooyu muy Cheikh Mahamadul Fadal waaye muy Cheikh Ibrahima fal Babul Mouridine mu mel ni it jaayante day loo xam ne dafa am ay yoon yu leer ci lislaam waaye it nga di fekk yaxub jaayante ci biir alquranul karim te jaayante dafa am lu muy signifié te loola moo di nit ki tënku ci ay charte yoo xam ne dafay tënku ca mbir mu jëm ci yoonu yàlla say jëf ak say wax ak saw doxalin lépp jëm ci jëf ngir jëmmi borom bi subhaanahu wa taala boo dee xool ci lislaam danga nga ca fekk lu ñu tuddee bayatul aqabatul ula waaye da ci fekk it jaayante boo xam ne dafay dox ci diggante yonent bi sallallahu alayhi ak délégation boobu wala kuréel boobu nga xam ne mooy ñoo bàyyi ko yasrib te bokk ci way gëm yàlla yi waaye it dangay fekk jaayante bu tudd bay'atu ridwaan ci Hudaybiya waaye jaayanteeg jigéen lislaam it ak yonent bi alayhi salaatu salaam ca madinatul munawwara kon da gis ne mën nga tudd ñeenti tomb ba ca jëkk mooy bay'atul aqaba al ula ak bi nga xam ne mooy jaayante wafd bi nga xam ne mooy ahlu yasrib ak bay'atu ridwaan ci xudaybiya ak mubaaya bi nga xam ne jigéen ñi defoon nañ ko te alxuraan tudd ko yaa ayyuhan nabi idaa jaaka al muminaat yubaayaanaka kon da ngay dem it fekk ci alxuraan borom bi di wax ne ñi jaayanteeg yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñoo ngi jaayante ak yàlla borom bi subhaanahu wa taala la doon jaayante it dafay am lu mu tudd te moom la ñuy tudde xidma te defe naa ku tudd xidma da nga tudd Cheikh Ibrahima fal waaye da nga tudd Cheikh Abdoul Fadal moo tax bi Sëriñ tubaa di tekki laaye ji borom bi di wax ne inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allah da ngay dégg Sëriñ tubaa wax ne inna alladina baayi'u rasula bi xidmatin xad baayi'u jalila ñi jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla lañ jaayanteel waaye lañ jaayante woon ak moom moo tudd xidma xidma mooy jëf ji nga xam ne ak jaamu yàlla la xidma mooy ibada mooy jëf joo xam ne ki koy jëf séentuwu ci pay gu teew séentuwu ci it payu àdduna da koy jëf rek ngir jëm yàlla loolooy tax lu mel ni jaay toolub lislaam nga taxaw ca di xare loolu ci xidma lay tabbi ndax du jëf ju teew joo ci séentu ci àdduna waaye la tax nga joxe sa bakkan joxe sa bak sa lépp mooy liggéey ngir jëmi yàlla mu mel ni it kon jaayante dafa séddali ko ci ay xaaj xam ngeen ne saxaaba yi alxulafaawul arbaa euh, ñoom it noonu ñu jaayante woon ginnaaw yonent bi salaahu salaam it gis nga ne saxaaba yi dañoo jaayante waat jullit ñi ci kan lañ jaayanteel mooy sayduna abu bakrin ginnaaw bi fi yonent bi bàyyikoo dañoo jaayante ak sayduna abu bakrin ginnaaw sayduna abu bakrin mboolem alxulafaawul arbaa euh, jullit ñi dañoo jaayante ak ñoom te moo di sayduna Abu Bakrin Seydina Omar Seydina Ousmane ba Seydina Ali kon jaayante googu yit mooy jaayante ngir lan dimbale lislaam ak taxawu ko euh, bokk na ci jaayante ci jihaad ci yoonu yàlla waaye jaayante ci bàyyi lépp loo xam ne dañ koy tere te alxuraan di ko tudd waaye jaayante ci lan jaayante ci ala sama wa taa te mooy ñi nga xam ne ñoo fi wuutu lislaam di taxawee nga jaayante ñoom kon day mel ni li ñu tudd jaayante euh, mooy jàpp kóllëre bakkan ci jëf jëf ju ràññiku ci lépp lu yàlla digle ak bàyyi lépp loo xam ne ab safaan la ci loolu it nag dafa am ab dawru bu rëy boo xam ne daf ko suyee ci biir yoonu murit te mooy jaayante te jaayante ci lislaam mooy jaayante ci almuridiya ndax sëriñ Touba moom bi mu nekkee sëriñ buy jàngale ca Mbakki Kajoor ba mu jotee ndigal lu bàyyi ko ci borom bi jaar ci yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu mooy rabbi ashaabaka bil himma wala turabbihim bi dars faqat faqat ayanaka la mu jadd li hadal jiil jaayante la mu woote woon mooy jaayante te moo di lan mooy fexe tënku ci ndigal waaye bàyyi it ak tere loolu tax ba muy wax sëñ aadama Gueye nga xam ne bi sëñ bi wootee ci mbakki Kajoor dañuy wax ne ba mu jàngalee wax ne jot naa ndigalul jaayante ba muy wax dafa ne awalu man amana bi waaw awalu man baayaa bi minal muridin Adama Gueye kon jaayante gi da ko caa misaal te moo ko xamal yoonu jaayante mu mel ni it mooy li nga xam ne nit ki daf koo def ndax jaayante ay wax la waaye la koy confirmer mooy jëf loolu moo tudd xidma boo ñëwee ne nit ki jox naa la sama bopp jaayante ak moom ngir jëmmi yàlla mooy def naa la wasila def naa la kerkeraan yow laa def bunt bi may jaaree ngir dox jëm ci ndigali yàlla yi ak jëfe jëfe ko ak bàyyi li muy tere loola nag boo ko waxee saw làmmiñ ni ngi pratiquer l'islam lay doon mooy aqida lay doon boo xam ne da nga koy ci sa xol waaye boo koy tudd ci say làmmiñ it da koy boole di ko jëf say cër kon du rek jaayante da nga naan jaayante na waaye day nekk loo xam ne wax nga ko saw boo ko waxagul même l'islam boo tuddul baati seere yi mën nga bañ a tabbi kon mënuloo tëb rek di pratiquer julli ak woor kon moo tax wax ji daf ci am solo moo tax ñuy wax ne tudd la ci làmmiñ fas ci xol wax ko ci ay cër boo ne jaayante naa moo tax dañuy wax ne Serigne Touba am na ku ma sa ñëw ci moom na ko Mbàkke damay jaayanteeg yow mu a ko jaayante ay wax la bi nga ko waxee dégg nañ ko boo ko jëfee ñu jàpp ko kon day doon loo wax waaye day nekk loo loo jëf euh, loolu moo tax it bu nit ki xasee jaayante nag jox boppam sayqu murabbi bi nga xam ne daf koy wommat loolu moo tax kii ñu tudde bis bi muy Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina boo demee ci minanul baaxil xadim la nga ci fekk Serigne Bachiru mbakke di wax ne xaqan alayya muriduhul kabir Cheikh Ibrahima Fall nettali na ma itam bu mag ba Cheikh Ibrahima Fall te lan la ko doon nettali mooy jóg gim jógoon di wuti sëriñ bu mat sëriñ bu koy eggale ci yàlla kon sëriñ boobu mu doon wut nag muy ku koy eggale ci yàlla ba mu ko gisee muy sëriñ Touba la ñu waxante rek moo la koy misaal mooy ba may génne sama kër damay wuti sëriñ boo xam ne egg na ci yàlla mën a eggale koo xam ne mboolem leer bindee fi ak dafay teew ci kanamam mu xam yu biir yi xam yu bitti yi waaye sëriñ boobu may wër nag li ngay xamee pas-pas bu dëgër bi Cheikh Ibrahima Fall wax mooy bi ma ñëwoon jamono te gisuma sëriñ bi muy dund waaye ñu won ma bàmmeelam danaa sax fa bàmmeel ba di ko liggéeyal ba am ngërëmam loolu kon pas-pas bu kawee mënta jéggi loolu waaye dangay ngay déggit la ko sëriñ Tuubaa tontu moom it na ko xamal yow it ne Ibrahima Fall mayit bi may ñëw jamono bu ma fi fekkutoon benn jeexintal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye wóor na ma ne asamaan si daana ko tiim biddiw yi daana ko tiim sama pas-pas ak sama cofeel ci moom dana ma may li may wut ci moom kon ak dogu la goo xam ne ci ku mat ki ngay jox sa bopp jox ko sa bopp jaayanteeg moom mu di la woon ci yoonu yàlla ak di la wommat di la tàggat loolu mooy euh, pas-pas bu dëgër moo tax ñu ne da ngay mel nan boo ajoo ci moom nag jox ko sa bopp ba noppi dafa am it ay ay am ay condition moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ne wa kun la da cheikh maytin wadia bayna yadal ghazili fa tantafia boo xasee jaayante yow aji namm ji muy murid bi jëm ci yàlla nanga mel ni ab néew ci kanam ki koy ragg ndax ab néew aji ki koy sang mooy wëlbati Euh, mooy seet na mi bombe ki muy ragg nan la koy euh, bombe lool it li nga ciy déggee mooy bi nga jaayantee ba joxe sa bopp kon ki ngay ki nga jaayanteel moom ñaar rek lay bëgg ci yow mooy nga yegg ak mucc idil mu rabbi laa yuridu fil murid ilal wusula yenn minal marid mooy egg ci yàlla ak mucc ci seytaane yépp ak i bokkam mooy tax ki ngay jaayanteel loolu lay bëgg ci yow waaye yow mi jaayante nag lenn ngay bëgg mooy idil muridu laa yuridu abada xayra rahmaani ay suxasada yooyu foo mën a jëm ngërëmul yàlla rek moom ngay moom ngay sàkku moom ngay moom ngay bëgg jaayante googu it euh, Serigne Touba da koo def boo demee ci biir ay mbindam la fekk moo xam ne jaayante war na ma moom ci ba yàgg sama xol baayaatuhu bi fu fuaadi xiina lam tarahu ayni wa axdimuhu lillahi mufaridan waaye gis nga it feneen fu wax ne ubaayiul yowma rasul al mustafa bi xidmatin wasalla al wafa maa ngi jaayante tey ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi la la la jaayanteel am na feneen foo xam ne dafa wax ne maa ngi jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi ni nga xam ne muhaajiruun yi ak ansaar yi noonu lañ jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu laa jaayante ñoom kon jaayante boobu it ci fan lay jaar waahidu la ala iqtil kitab bi xidmati lil Mustafa babi sawab mooy jaayante gi dafay jóg ngir fas yéene liggéeyal yonent bi alayhi salaam waaye jaare ko ci téereb yàlla bi boo demee ci biir da ngay fekk bi mu joxee boppam yàlla ba noppi ka muy def tegtalukaay jébbalaat ko mbiram mooy yonente bi sallallahu alayhi boo demee da nga fekk aslamtu nafsi li rabbi la sharika lahu maa alladi xafuhu shughli wa hajati aslamtu nafsi li rabbin la shabiha lahu maa alladi yuhibbuhu axza maramati loolu lépp la la muy tegtale rek mooy jëm mi jox gi jox yàlla boppam waaye jaayante gi mu jaayante yonente bi alayhi salaatu salaam di ko di ko roy egg na ci wax ne aslamtu nafsi rabbin jalla an masal maa allazi xad naja min kulli afaati aslamtu lillahi rabbil alamina ma muhammadin xayru man waala wa man yaati kon da ngay fekk ne moom it danga ko te fekk ci ay jaayanteem moom Serigne Touba ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon jaayante dafa mënta ñàkk ci yoonu tasawuf te yoonu tasawuf bu fekkee dëgg dëgg tasawuf bi sëñ Touba di dund la nga xam ne sëñ Touba bu dee aqida xaqida ashari lam barki démb sëriñ Muntaxa leeralaat na ko yàlla na ko yàlla gën a yàggal te wéral ko wax ne lu leer moo fi nekk mooy sëñ Tuba xaqida ashari la am waaye bu dee ci nekk ngirum Malik moom la ñu digal ñu nekk ci waaye bu dee ci tasawuf nag tasawuful junay di la nekk te loolu mooy ban tasawuf mooy a tasawufu sunni yi mooy atamasuku bil kitaabi wa sunna mooy rek li li mu doon wax ne bali tasawuf an tasu bila kadarin wa tatabil xaq wal quran wa diin moo tax dafa mënta ñàkk ci tasawuf nga am dalil xeet mooy am koo xam da ngay jaayante ak moom mu di la wommat kooka nag moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne ku bëgg a egg ci yàlla na jàpp ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye na jaayanteeg aji kuy topp yàlla ci biir ak ci bitti di ko wommat ci xam-xam di ko wommat ci topp yàlla comme ni mu koy tàggati ci defar ko ba mu tàggoog lépp loo xam dafa juyoo ak diine man talabal wusula lil jalil fal ya'tasim bi sunnati rasul bi an yulazima muti'an la yamil fi dahirin wa batinin an is sabil yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki aada kon mënta ñàkk ci nit ki moo tax sëriñ bi wax feneen ne wa man yurid li rabbihi wusula fal yabghi xabla sayrihi dalila ku jóg bëgg a jëm ci yàlla bala ngaa jóg nanga wut kerkeraan mooy na nga wut wasiila walay wammat ngir jëme la ci borom bi subhanahu wa taala kon nag euh, jaayante mënul ñàkk bu dee ci euh, murit ni ko alxuraan waxee ca borom bi subhanahu wa taala wax ne yàlla jënd na ci jullit ñi waaye gëm yi seen alal jënd ci ñoom seen bakkan inna la an minal muminina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul na bu dee ci almuridi it noonu lay mel da ngay joxe sa bakkan joxe sa alal mooy joxe sa bakkan mooy tënku ci ndigal li sëñ bi digle waaye boole kook nag euh, di jëf loolu it borom bi kon bi mu ko jàngalee ci alxuraan lool it la Serigne Touba di seere ci nit ki bu jógee jëm ci yàlla faw mu nangoo jëf moo tax bokk na ci mandarga yi warteef yu war aji ki jaayante muy taalibe bi digganteem ak sëriñam mooy nga di ko liggéeyal ak di ko jox sa alal loolu ci charte yoon wi la bokk te nit ki looy tegtaloo ba dégg sëñ Touba nee na sëñ Touba bind ko mu nekk lu wér nga teg ci sa bët loolu moom amatul beneen commentaire te sëriñ Touba moo ne daytal worma fi ma jeexe yam fa mooy defal sab sëriñ muy sab sang te nga jël lu baax li nga am jox ko di faj ay yitteem nag bil bas di walxiit ma bu sëñ bi laajee na nga ñuqi jox ko bu santaanee na ko liggéeyal mais kan moo gën a ragal xàq ku mel ni sëñ Tuubaa cig jub ku mel ni sëñ Tuubaa ci baax ku mel ni sëñ Tuubaa ci màndu daa am ba nit doo doomi soxna wala nit mën a jóge fële jël jëmmam jox sëñ Tuubaa jël alal mi di ko jox sëñ bi di ko ñaanal ba noppi defar aw nit nit ñi di leen jébbal nga bëgg wonee wane na yow kon kenn warut a jox kenn dara wala kenn warut a topp kenn bëgg koo mandargaawoo ci sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa nee na ab murit aji jaayante day liggéeyal sëriñam te di faj ay yitteem ak di ko jox alalam kon loolu bokk na ci melokaan woowu euh, ni taalibe bi di def ci jëf digganteem ak boroomam moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ne euh, wa man araada al qurba min rabbil wara fal yatluban shaykhan wa yatlu suwara ku bëgg egg ci yàlla na nga jàng alxuraan waaye na nga wut ab sëriñ kon bu fekkoon ne jàng alxuraan rek dana doy wasiila dana doy ab sëriñ boo ko jàngee ko jëru jébbulu waaye Sëriñ Tuubaa dane wa man araada qurba min rabbil wara ku bëgg a jege yàlla fal yatluban shaykhan na nga wut ab sëriñ waaye doo ca yem na nga yetlu suwara ngay jàng alxuraan sëñ Touba kenn ku jot ku ko jot ci alxuraan amut waaye dafa wax ne am na sëriñ kan mooy sëriñam yonente bi wasilati abuduhul muxtaara sayidina huwa alladi man aba taqdimuhu xufida baana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa rasul ku am xel xam na ne yonente bi mooy sama sëriñ kon sëñ Touba mënoon naa yem ci alxuraan sëñ Touba mënoon naa yem ci rek tënku ci kon ne du am wasila ci kenn waaye yonente bi salaa salaam la jël def ko muy wasila moom sëriñ Touba kon yow mi eggul ci yonente bi nag da nga wut wet kerkeraan yow mi eggul ci yonent bi faw ndax kon lan moo tax alxuraan wax ne xul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkumullah yonent bi de waxul ne boo leen bëggee yàlla bëgg leen topp leen yàlla dane boo bëggee yàlla bëgg leen fattabi'uni dammir ji ci rasulaay lay dellu topp leen ma yuhbibkumullah yàlla dana leen bëgg kon moo tax wa man yuti rasul faqad ata allah yàlla mënoon na wax directement rek kuy gëm gëm ma te boo gëmee yàlla te gëmoo rasulaay yàlla du nangu sa yëf moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne inna mahabbati ilaahi la tunaal illa bi xafil Mustafa babi nawal maanaam mi ngi mel ni bëgg egg ci étage bi te ne du ma laal escalier yi bëgg egg ci ci étage bi te ne du laal échangeur bi mooy bëgg na maa egg ci yàlla waaye awliyaullahi yi xej ji yàlla yi ñi yàlla tànn seetal leen doxale suñu digganteeg jaam ñi dama leen di jéggi jàll déedéet même alxuraan ji ngay jàng yow tafsir yi ñu ko tafsir ba nga xam maanaa yi nit ko def kon dégg gi nga ko dégg nit kooku sa sëriñ la ndax jàngal na loolu tax nga xam yàlla kon nasriye ak tatbiix yee mu am mooy pratiquer ak théorie nit nag mën na laa jàngal ci ba noppi misaal ki la jox permis code de la route jàngal na la jox la permis na nga moytu troisième position na nga moytu rojeer yi na nga moytu nangam waaye ndax boo jógee yor sa baar di dawal ndax code de la route da lay topp ci ni ngay dawale ak ni ngay doxale kon nit mën na laa jàngal rek yàlla nii lañ koy toppee yàlla nii lañ koy toppee te du tax nga xam yàlla nag sëriñ Tuubaa nag bu lay won yàlla day jàpp ci sa loxo di la wom wammat fa kam muridin ila mawlaaka qad wasalu bi fay di nuurika yaa mawlal muridina day day fexe ba nga egg ci yàlla moo tax jàng ak sayxu tarbiya ak sayxu taxlim bokkut ab sëriñ mën na lay jàngal naan bàyyi leen duxaan bàyyi leen naan sàngara bàyyi leen leb bàyyi leen sàcc waaye boo jógee ci téere bi ca lay yem ndax booy jàdd fa nga koy defee dala fay fekk sëriñ bi lay tàggat nag dalay defar ba nga jomb rus xam ne waxtu wu ne yaa ngi teewlu ndigal yàlla yi mën koo pratiquer mën koo jëf bu fekkoon ne daa mën a ñàkk borom bis bii di Cheikh Mouhamadul Fadal sëriñ Touba ko woo ca Thièyeen mook mu Mouhamadul Moustapha sëriñ moo roqee buusa mi di jarbaatam waaye Cheikh ma sàmm Mbakke mi rakkam xam le ne kat du bàyyu kenn du maggi kenn du nijaayi kenn li fi moom day jaay loolu ci mooy lan. mooy bu dee da nga ne Ahmadou Bamba rek Ahmadou Bamba moo jur diw moo jur mais Xaadimu Rasul mission la mission la waaye sëriñ Fallou moom dalaa confirmer ne jaayante mënta ñàkk ba ba ko Sëñ Tuubaa waxee loolu ay bayitama koy firndeel yaa ayo cheikhu nafisel murtaja yaa fatihat ma kaana qablu murtaja beatu beatu bu nuwatiya bil irada lakkum li kay orza bi xar aada Serigne Fallou dane yow sang bu gànjareewu bu riche bi jamaa bi ku foor ki ku yaakaaru ki ki nga xam ne li tëj woon lépp yaa ko tijji man jaay naa man Mouhamadul Fadal jur gi nga ma jur yow Serigne Touba jënde ko ak taalibe nag kon mu bàyyi amante ñàkk te te ci kanam Serigne Touba la ko defee kon jaay naa li nga ma juree jënde ko ak taalibe waaye lan la Serigne Fallou gañewaat min baadi ma saraytumuha minni fa inni ahdaytuha lakum bi ghayri manni bi ma la jaayee li nga ma juree ba ma moom sama njëg gi man Mouhamadul Fadal jëlaat naa njëg gi jébbal ko yow Serigne Touba. moo tax Sëriñ Tuubaa mas naa wax ku ñuy wax Sëriñ Sangin Mbakke na ko ndax Mouhamadul Fadal jaaxalu la mu ne ko jaaxal na mu ne ko bala nga caa yéemu da ngay xam lu mu def mu ne ko lan la Mouhamadul Fadal def mu ne ko daa amul lu may lenn jaay ko Sëriñ Tuubaa rek la Sëriñ lu am moom la am ci ndey moom la am ci baay ndeyam di baayam baayamay nijaayam mu ne ko ak jur gi ma jur lépp jaay naa ko nag jënde ko ak taalibe kon gis nga ne jaayante mënta ñàkk waaye wan yoon la ca doon doxee mooy ki nga xam ne cofeel gu dëgër gi mu laltaay ci melokaan woowu moo tax kon Sëriñ Tuubaa nee na inam tisaala amru cheikhin aarif yufdil muridin li sewel maarif inal maarifa kunuusun tabxa mahdawi wal ilaahi abxa duumu alam amri rabbi bi amri cheikhin aarifin mu rabbi kon nit ki ngir mu egg ci yàlla faw mu jaayante joxe boppam ki ngay jaayante nag daf cee bokk li Sëriñ Tuubaa ma sono tontu ne إلى المريد الصادق إذا أراد الانتفاع يعتقد في شيخه أنه واسطة بينه وبين ربه ويعتقد أنه لا يأمر ولا ينهى إلا بإذن من الله تبارك وتعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام فيمتثل أمره ويجتنب النهي أمام من يأمر من جهة نفسه أو ينهى من جهتهما فضال مدل Serigne Touba nee na ab murit saadix bu dëggal bu nammee jariñu day fas ci xolam ne sëriñam mooy ki dox digganteem ak boroomam kon bokk yi saa yoo toogee ba yàgg nga ne bàyyi naa yëgal ne yow mu démissionné xam xama léegi la nga dikku ne sëñ Touba doy na ma waaye ñi fi bàyyee ma doyut da ngaa ñàkk kersa da ngaa yaradiku da ngaa réer sëñ tubaa ku xeeb li mu fi ba moom nga xeeb ndax ñi mu fi bala am sëñ tubaa ñi mu defar la am ñi jur ñooñe ñen jur lim bind ku fi bali sëñ tubaa defar ak ñi sëñ Touba am ba nga ne xeeb naa ko kon yow sëñ tubaa nga xeeb léegi-léeg nga dégg sax ku ne man sëñ Touba mooy sama sëriñ dama ne bokk yi poste courant kenn du fa chargé téléphone poste courant kenn du fa sar chargé téléphone ku xeeb sëñ Abibu mii baa ngay xeeb sëñ Moustapha mii fooy roof sa téléphone bi ba chargé dana la jaaxal li fi sëñ Touba baax ku bëgg am courant fa nga naan ko roof muy tonalité mu ne kon murit bi day fas ci xolam ne sëriñam mooy ki dox digganteem ak boroomam du ko digal lu may lu ko yàlla digal du ko tere lu may lu ko yàlla tere fas ci xolam ne kon ndigal li mu koy digal ci yàlla la bàyyi koo mu ne muy jëfe ndigalam di bàyyi tereem waaye sëñ Tuubaa leeral na kuy digle nag ngir sa bakkanu bopp rek wala ngay digle ngir lu la neex képp sëriñ Tuubaa ne na fa baalun mu dillu kooka dafa réer waaye yemut ci réer waaye day réeralaat nee na ci loolu moo tax moo xam ne wajaba taatu man yaxfu rasul salla alayhi man bihi yaxbu bi suul min ruasai diini dil kamali man laa yora min siwal jamaali moo tax nag na nga fekk ku mata a topp nga topp jox naa la sama bopp àddina ak alaxira koo koy wax na doon lu assuré lu wóor lu tege ci aw yoon waaye am gànna misere muy yëngal fee ba yàgg rek ñaar ñett topp ko mu ruq jàdd ci ruqam ak koñam di kël-këla nga wut kum nax boo ca jaaree dangay sonn gis naa beneen lettre bu sëñ Tuubaa bindoon maam Cerno na ko wa man tawajjahat annaasu ilayhi wa tawajjahu ila nafsi aw ila anfusihim dafahum rabbu nas ila naari lati wuqudaa naasu wal xijaara sëñ Tuubaa nee na ku nit wonoo leen yàlla lu mooy wan leen sa bopp baa nga won leen seen bopp yaa ak ñoom yàlla dana leen boole tabal sawara mu ne ku la tegtal yàlla nag na nga ko topp ku la tegtalul yàlla na nga ko daw da lay réeral Serigne Touba nag yàlla moomee mu doon wonee li ngay xamee ne yàlla kese lay wone mooy la Cheikh Ibra Fall jaayante joxe ko boppam di ko jëfal mooy li Serigne Fallu mii def jaayante ko te wan yoon la Cheikh Ibra Fall jël ba am lii xoola tey démb maa ngi ci wax ak Serigne Cheikh Oumy 1960 1963 lañ tuddee Cheikh Ibrahima Fall sooroor ba ca tuuba 2023 ñu tuddee ko tey bis bii ñuy defal Cheikh Amadou faadal fii fi Ndakaaru muy juróom benn fukki at diggante boobaak léegi bu doon ay caaxaana xanaa kon kenn duutu ko wax ca wan yoon la Cheikh Ibrahima Fall jaar waykat ba nee na dikkul ilaahi la sax yenn doo liggéey joxe ko ci lii la jaar ba ñu xëy bàddil ko Cheikh Ibra Fall amaana waaye di ko jeex ci téere ba jamono allahu akbar yàlla noppi na Cheikh Ibra Fall ëllëg la ñuy xam mbiram buur yàlla moo xarale wala yafalu maa yasaahu Cheikh Ibra Fall kon doo ko xam tey waaye ëllëg ngay xam taxawaay bu réy boobu maamoon kon loolu wane na melokaan bi nga xam ne moom la Serigne Touba def ci moom te loolu mooy li Cheikh Mamadou Fadal doon doon dund Serigne fallu jàngal na nu melokaan wi nit di jaar ba mën a jariñu Serigne fallu wan na nu yoon wi nit ki mën a jaar ba am li muy wut Serigne fallu jàngal na nu yoonu Serigne Touba nee na bëgg Serigne Touba moo ne ci sama xol man Mouhamadou faadal bu bëggatuma dara te waxtu ne bëgg gi ma bëgg Serigne Touba day yokk day dolli ko moo nu jàngaloon nit ñi jàppee Serigne fii jamono toll ñu bëri yoxam lu ñu bari dellu ginnaaw ñu bari jàppe sëriñ si ay doomi bàjjan ak i doomi nijaay lu neex nit wax sëñ Fallu nee na sëñ Tuubaa dañ ko nikk na ko nan ko tum na ko katiiw na ko taraw liis sëriñ Tuubaa ku ko jàpp te dëggal ca dëggal nga ko jàpp te mu wér ci yow saadatu daare ni la lay jural mosoo dégg ci àdduna sëñ Tuubaa mi ma téye moo a tax a dellu ginnaaw mosoo dégg ci àdduna sëriñ Tuubaa laa doon liggéeyal samay bokk raw ma sëñ Tuubaa tax ña ma jiitu jiitu ku ko liggéeyal la sëñ Tuubaa noonu man takkun bi rasulillahi xidmatuhu mu saaxiba sidqi wal ixlaasi wal xasan falaa yaqaafu wala yarjul war a zamana idil wiqaayat tuxnii anil kinani ku jàpp yonent bi di ko liggéeyal tam doon dégg ci yow nga sellal jubal pas-pas bu dëgër wamat la kaw ngay jëm waaye doo dellu ginnaaw kon nag li nu sëriñ bi paggul tey jii lii nu boole mooy ak murid Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina daa jaayante xat baayaa cheikh lool la sëñ Moulay bu so wax xat baayaa cheikh xidaman xaadiman fatina yabbugi ridaahu wa anhu yaxmelul kulafa sëñ Moulay nee na Cheikh Ibra Fall bu yàgg la jaayanteeg Serigne Touba di ko lëggéeyal nekk ku xellu waaye di sakku ngërëmam waxtu wu nekk kon nag bu nu dajee tey bisub Cheikh Mouhamadul Fadal Cheikh Ibrahima Fall ñu tudde ko ko nga xam ne boo jàkkaarloog soorool bee ca Touba mu sut fa ëpp fa gën faa rafet nga ne waa soorool bi kun ko tudde kum doon mu ne xanaa ki daan liggéeyal ki dàq julli moo ko mën mën ko tudde muy cheikh ki dàq julli la doon liggéeyal muy Cheikh Amadou Bamba ñu tudde ko Cheikh Ibrahima Fall kon ku bëgg a jariñu ci ki mën a julli kii dangay def ni Cheikh Ibrahima Fall mii daawul julli ngeen mën cee jariñu pas-pas mooy jariñ nit intiraat baaxul ci ab murit deng dengi baaxul ci ab murit yokkat baaxul ci ab murit sëñ Tuubaa nag nee na woon am na ñooñ danaa leen sëlbu am na ñooñ danaa leen yëlbu am na ñooñ danaa leen dakku am ñooñ danaa leen yóbbu fa ma jëm léegi-léegi nit na bàyyi naa na xool boo xam sëñ ko yëlbam déet te Cheikh Ibrahima Fall nee na woon ganaar gi dana yëlbu te ci digg mbanding lay yëlboo cuuj bu wadd bukki for la seex Seex Ibra Faal la ko woon am na ku mas di baagante ci weti sëñ Tuubaa naan ku ne ma fi ñukk ma ne la fi ñël sëñ bi ne ko maa fiy ñukke bàyyi naa ba nga jàppee kenn yëgu ba nga bàyyee boo ko waxutoon kenn du ko dégg yoonu murit ku dund keneen ku dee keneen dund ku ba keneen jàpp ku ñakk keneen am ku wopp keneen ñëw ku découragé ñeneen ñëw ñi fi ne deux mille mille neuf cent soixante ba mille de tey Cheikh Ibrahima Fall gën di jolli mbiram di gën a jëm kanam di gën a te du fay te du dellu ginnaaw loola barakat yi waasinanu baqiya baqa mu ko Cheikh Ibrahima Safiya jërë ngeen jëf Serigne seex mi noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm bu baax Mbàkke di la sant ci sa baax ak sa yaatu ak sa ubbikuk dënn nun ñii di jéem a nab nabi ci yoon wi kenn ku ci nekk ameel na la njukkal yow Serigne Cheikh Oumy ndax ci sa maam rek lay xëy suba ngoon damay wax na nag bokk ci sëñ ab yi bu léegi dama koo nuyu mu ne ma yow da bëgg sëñ Tuubaa waaye loolu loolu loolu jar paas fii ba makkaak ginnaaw makkaak fu gën a sori ci àdduna ngir déglu baat boobu ki ko wax ku mu doon sëriñ abibu sëñ Fallou di sa way jur mu jaay njureel gi ni bàyyam jaay ak njureelam jënde ko taalibe tey boo tuddee Touba ca kanam tudd sëñ abibu Mbàkke mu sëriñ Fadilu bàyyi juddoom bàyyi léppam ta xam ki mu doon boole jub ak sàmm akuk doylu waaye di liggéeyal sëriñ Touba kon loolu ñii mel nii ci yoonu Serigne Touba wi mënuñoo def lu may jël suñuy pas-pas ak dénk leen ko ak jox leen suñu bopp te duñ ca dellu ginnaaw duñu yokkat maa ngi nuyu kilifa ak si léeg Serigne Hamsatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbakke ñaan yàlla suñu borom yàggal ko wax nañu ne Serigne Cheikh Awa Balla ñëw na moom Cheikh Mamadou Fadal moom it di sunu Serigne Serigne Lamine noo ngi leen di sant baax Mbakke di leen jaajëfal ak commission bi ànd ak sëñ euh, Cheikh bis bi yëpp sëñ Ablaye Mbaye Peex